moo di 18 mooy bis bi nga xamee ne que si ne maanaam ci la Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul demoon liggéeyal woon yàlla liggéeyal ñoom te yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di bis bi nga xamee ne que si ne maanaam it moo di mbégum jullit ñëpp waaye it di lislaam bi yëpp di bis bu nga xamee ne que si ne it maanaam moo jëmmalit lislaam jëmmalit yoonu murit mu di fukki fan ak juróom-ñett buñ ko waxee mooy bis bi nga xamee ne que si ne mooy bis bi Serigne Touba kon yëg-yëg bi ñu ci am mooy dindu li ko sëñ Touba digle woon ndax Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul moo demoon liggéeyal yàlla ba ñëw ci bu ne bis bi may dem ci laay sant yàlla na ngeen ma ci sant la yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu di ndigal loo xam ne si na moo ko joxe woon waaye ndigal li nga xam ne si na moo ko joxe woon it moom la ni daal di jëfee ci terme yi nga xam ne si na moom la tëral mu di lan jàng alquran julli si yant yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàng xasida yi defit ay bernde siyaarante joxu mbokk ñaan jàmm ci réew mi ñaan jàmm ci àdduna bi seen ñaan faj aajo yi guddi gi fan faj bàkkaar yi faral bàkkaar yi faj aajo yi dàqal nu mbas mii nekk ci fii yal nañu ko yàlla tegg tegg ko bépp réew kon faj aajo yi neex rek la def yal na sëñ daal moom tànk la am mais foo ko natt rek weesu na ko yoonu murid moom noonu la ko xamee mooy jëfe ndigal bàyyi tere yaa ngi dégg wax bi ki jiitu jiitu ki si topp topp ci waaw